dal ak jàmm ñu taxat yi di kay xëyndoo tàmbale ko Sud Quotidien di kànn naka ci élection présidentielle yi nga xamante dañ koo dàq les sept naka maître du jeu fintoon naka ñoo war buum ñoo war buumee ndax dogal bi war tukkee naka ci ñoom fintoon moo war a lépp yéene bi ne nag ñoom dañuy ànd nag dëgg li président de la république bëgg wala sax dañ koy dal dee teggi na leen ngir rek amalaat li nga xamante ci date

interdiction de voyage naka contre les initiateurs loolu la gaañu bëgg yéenekaay bi di ko feelum di naan premier conseil des ministres gannaaw bi nga xamante dàq nañu élection présidentielle bi Macky Sall mburu ak soow la ko yéenekaay bi tuddee ndax Macky jot naa yeesal naka confiance am ci premier ministre Amadou di gën a delloowaat naka li nga xamante ni mëri bëgg-bëggam ak cofeelam ci président de la république marqué na soutien am na xamante ni dañoo jàpp ne politique dong moo laxasu seen wàllum arrestation te mooy quotidien ci conseil des ministres Macky yeesal na confiance ba mu amoon ci Amadou Ba gannaaw bi gars di njalti njalti di mbii cë mbaalu ne fi ñu ni Amadou Ba ak Macky Sall daanaka safara ak caax waaye nag di ki démb ca conseil des ministres ma Macky ak Amadou Ba la ñu wane wuute na loolu ak li gars di wam moo ngay aytee naka dialogue bi nga xamante woote woon na El Hadji Ibrahima am na ko crise l'entente bi nga xamante dëgg na fintoon yi dëgg daan naka si biir réew mi la démocratie sénégalaise jàpp na ne fintoon boo moytuwul dina duire si ab démocratie boo xamante ne si dong moo cay lalu ab beneenu Sénégal naka moom ñu dal dee gis nag li ñu gis naka ci enquête yi kaay moo di dialogue apaisement du climat politique Macky Sall à la manœuvre fintoon naka moo ngi bëgg a doxal le président soobu na a gaaw ngir fexe rek ba dellu siwaat jàmm naka ci espace politique bi ana kan bi kan la hypothèse ak émission bu ñaari fan ci weeru avril loolu lépp yéenekaay bi xëy na see samp ab laaj ndax lëndëm na ci xelu askan wi Le Quotidien yéenekaay ne création FC 25 nag nouveau club de l'opposition taxaw nañu géeteru naka ngir jàmmaarlu ni ñu waroon dem ci élection présidentielle ñoo ko dal dee taxawal ñoom naka nee nañu ànduñu tey ànduñu ëllëg ànduñu gannaaw ëllëg ci dàq bi nga xamante ci Macky Sall dàq na ko élection présidentielle takk kenn bëggatut ko gis ci réew mi waaye nag Macky Sall moom na fexe rek ba li nga xamante ne si moom la fi liggéey mu yàq ko waaye tamit bu ko yàq ndax mu bëgg toog rek lu mu war a def lu dul bu ay bagaasam te dem injustice ni moom lañ teg a dàkk putsch ngir jàpp ne fi mu toll nii la Macky Sall def duñ si moom la jël di dogal élection présidentielle bi kenn waru koo dàq kenn waru koo jël kenn waru taxaw rek di ko xalaat libération yéenekaay dikkaat ci rapportu élection présidentielle boobee 25 février lañ ko waroon a amal Macky ba tey moo nga taxaw fa mu taxawoon fa mu tegoon loxoom fa la ko teg fa mu tegoon coñcoom fa la ko teg fa mu tegoon tànkam fa la ko teg ndax jàpp ne fi mu toll yooyu moom dootu mun a neex ndax dikki démb rek moo ngay woo ay ministre am ñu nga xamante ni bi nee na Macky moo ngay wax ak ñooñam fi mu toll bu waajal li nga xamante moo di élection yi dee jëm la confiance de Macky Sall la loyauté et l'engagement de Amadou Ba loolee nag yéenekaay bi xëy na koo fasal turbine yéenekaay ne lu munte am it diggante Amadou Ba ak Macky Sall moom dañuy naxante donc jeu de double donc moo fa am nee malgré li fi jot a xew confiance bi nga xamante am na nañ ko ñoom ñaar ku nekk nag renouvelé na ko sa morom donte nag am nañ ci bëri ñoo xamante ni njortoon nañ ne Macky Sall ak Amadou Ba boobee c'est fini fineegul de ndax boobu ak léegi ñoo ngi nas di teg ak a nocci ñoo ko déggandoo jaa ngeen jëf ba ëllëg